baax di leen ziar yéen ñi nga xam ne saa su yéen baaxoo di jàkkaarloog Waarwi TV ne ko alalu si Ahmadou Bamba Xaadim Rasool Waarwi TV ci ndogu yi nga xam ne mi ngi koy doxantu ci weeru sell wi di weelu ngëneel ci diggante Cheikh Rafara Cheikh Ahmadou Bamba ci gan gi mu ko doon séntule ak teraanga ji nga xam ne Cheikh Ibra da ko doon terale Cheikh Rafal njabootam nag des fi tey di def yi 2021 ku ko da nga xam ren wax dëgg yàlla ndogu yi ni mel ren ah wax dëgg yàlla xol yëpp naat ñëpp la seen xeddal ci njabootu maam Cheikh Rafal gi nga xam ne fi des ci jamono du kilifa di suñuy waajur te mate ko lool. tey ji nag di àjjuma ji nga xam ne ah, macha allah mooy àjjuma ji nga xam ne moom mujj ci vingt 2021 ñu ñëw fii nag ci Paline. fa seenee waxtaan ak sunu waajur diggante Cheikh Rafal ak ndogu yi ak diggante njaboot gi ak àdduna ni mu soppi ko nit ñi fàtte démb xamatuñ fi ñu taw teg suñu tànk te buñ royee ci ñoom ñi rek kenn ku nekk fa nga war a teg sa tànk danga fa teg ndax ndigal ak pas-pas ak yaraku taalibe loolu lan xam njaboot Cheikh Ibra ñu fekk bi sama baay baay booy ñu ngi leen nuyu baax di da ziyaare Fall yaram asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh noonu nuyu di leen ñaanal jàmm ak salaam di ñaan tamit seen eh, seen kii bi seen seen bi ngeen indi fii. Waarwi TV saa boobu dafa leen ci barkeel. te bokk ci émission yi a kawe bi yëpp eh, ko. waaye ko moom fekkee laaj bi moom saako la mën naa wax ba ci xaw rek waaw léegi bi lay digal wax ne bii noo koy def ci ndigalal suñu waajur yi. nga xam ne ñoo fi nekkoon ginnaaw seen wax di ko liggéey di ko liggéey yàlla doo liggéey bi nekk léegi suñu kilifa loxo mu sa jum faal kooku nekk ne ak jël ko téye moom moom nga moo liggéey moom liggéey liggéey ba ba la bàyyi ba mu gën a rafetee def ko lu gën a baaxee def ko muy kër gii muy kër gi kër nag moom kisi kisi sa jëmb la waaw moom ci kii daa bokk ci caisse bi sax waaye ci doon bokk waaw waaye nag liggéey bi liggéey bi tam foofu laa ko yóbbu ci moom laa ko yóbbu moo tax damay bi di ko doog yóbbu sama kër yi nga Mbàkke yoo xam ne fas yi ma jox ci ñu nekk bii boobu ma leen jël moo jox ne ma da ko ci mooy dog yi dog bi yàlla yi waaye yëpp fii ne sept heures ko yooyu li mu des nag si bopp moo joxe ndigal dinaa wut yéen jin doog a ci yooyee moom yooyu ñoo bokk yeneen léegi indi ko fii yóbbu ko Mbàkke loolu ay yokku la waaw kon ñu seet baax dégg rek dégg rek moom kenn ko ne jàpp nañ ci xanaa kay soo ñëwee bokk murid yi taalibe yi waaye man nekk na nga gën liggéey bi te gën ko téye gën ko gën ko ndax ndigal kat koo yokku yàgg wàññi ndigal bi moom yokk nañ ko baax a fa nag doy rek bàyyi fa nag man gën a woote ndaw yi ñëw yi moom fekk ñu ngi war bis bu xëyee war ñu bis bu ne war bis bu xëyee mën na bëgg loo loolu loolu joxoon naa démb la bàyyi tey joxoon naa bu njëkk la bàyyi tey déedéet léegi weer wi nga ab bis bu ne bis bi ñu toggee loolu rek fexe ba sa jëf dem war kat weer weer jeex te benn bis lañ ci dañ ci seet muy muy da nga joxe aide yi te bis bis bi nga joxe bis bi nga joxul ah maanaam moom mooy bis bi gën ci bi gën ci yow kon bu waxee rek da nga xam sa fa ñax do seet waal loolu moom moo ngi dégg bëgg yëpp rek waaw waaw koy dafay nekk ñu gën a góorgóorlu rek ci téere bi ndax ndaw loo gis am na kër gu mu bokk lépp kese la la xam ne mooy si ji na ci kër gi xam ne mooy si yëriñ xool ci moom ndax kër goo fi mën dem am ñoo xam ne nekk nañ ci neex borom kër ga am ñoo xam ne ñu ko jël ko dafa neex borom kër ga moom mënul ak tere waaw ak di dig baax santaane lu baax nekk ci waaye ñëpp ñoo bokk jëm waaye yi nag moom kenn ko nekk boo nga xam ne moo nekkal nga xam ne moo si weesu ci yoon wi xool ci moom xool ñu mu yar te di ci yoon nga xool ci ñooñu te bañ a xool ci keneen wala moom yoon wi ab yar ak teggin ak seel ak laab Baay Faal moom ab yar la ay teggin la ak seel la ak laab la bëgg lu baax wax woon loolu mooy Baay Faal ñun ñi xam ne ñoom ñu xool Seex Faal la ci loolu la ne waaw kon yéen fu waay ma nekk di ndaw na nga foog foog loolu bul fo bul jaaxal bu nekk loo xam ne bu lu yoo xam ne waru ci dugg bu nekk yoo xam ne waru cee nekk déedéet yow nekk ci nga war nekk rek lu baax loolu xam ne gis nga mooy ci baax ne ore xam ne gis nga xam ne nekkul ci la gën barakaatu noo ngi ñëpp rek tey ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi loolu te wér sëriñ Muntaxa Mbàkke ak sëriñ Cheikh faal jëm ak mboolem njabootu suñu Tuubaa geek mboolem njabootu suñu maam Cheikh Ibrahima Fall waaw ndogo yi comme ni nga ko ni nga koy déggee rek li fi suñu maam Cheikh Fall bàyyi woon loolee la sëñ Cheikh jëm yor ba tey noonee ñu ko daan taxawlee suñu jamono suñu maam Cheikh Fall noni yi lañ koy taxawlee sëriñ fees sëriñ Cheikh Fall jëmm kon yaakaar naa bu dee am na lu ci yokk mooy ndab yi ak cin yi loolu mooy lu ci yokk waaye nag na ko Cheikh Ibra sose won tey jii kii ko fi tekkal taxawee na ko taxawaay bu mat sëkk waaw lii nag cin yi boo ko gisee moo cin yi ya ñuy taal ca Mbàkke yi ya Serigne Cheikh Fall am ndax bu ñu noppee fii koy def ci ay ndab yóbbul ko ko bu ñu demee ñu boole ko ci ndog yi jëm Touba ak Njaaréem ndog yi nag euh, ni ñu koy taxawee mooy fexe saa bu ñu xëyee sangu ba set làpp nekk ay nit yu yu xam li ñuy def ñëw liggéey ko ci anam yi nga xamante ni noonu la ko sëriñ bi bëggee saa bu ñu xëyee fi mu ne ku ci ne balaa ngaa laal bi di nga làmp ci sa poos loo xamante ne loo ciy tàbbal la cin gi nag amul lenn loo xamante ne nii lu ñu ko lu ciy def la lu lu lu bokk ak liy dem ci kër gi lépp loo ci gis lu ne rek lu ñu ber la teg ko na le ñam wi ñi ngi koy toggee niñ ko déggee woon xam bu njëkk dañoo xam suñu maam Seera Faal bu daan xool ndawal daan jël ab bant jam ko ca bu ñoree mu xam ni bu bu jàllee mu xam ni ñor na waaye jamono nag dem na ba toll foo xam te ñu toll yii ñu defal ay ginaar la ginaar moom bu fekkee ya, xam nga liggéey mën liggéey mën nga ko liggéey du soxla yenn yi bu li jëm ci bi ak gi lu ci lu Danu koy xayma ba xam lii kat la ca war a dem la ñu def ko ca buñ ci ku ko ba ku ko jëfandikoo di nga xam ne lii kat jëfandikoo loo xamante ni waajal nañ ko fañ ko war a waaw kon daal loolu moom mooy li nga xamante ni mooy moo ci moo ci moo ci moo ci moo ci moo ci xéewal waaw boole ko nag liggéey bi deesu ci deesu deesu ko caaxaanee deesu ci kaf ci ak ci rek nañ bi lañ mu mel ne bu ci bi ni ñuy bu ñu nekkee fii ci liggéey bi noonu noonu noonu noonu lañ koy doxalee. mënut a ñàkk mënut a ñàkk waxi Sëñ Tuubaa moo ne sama tey gu ne dina gàcceel sama démb loolu nag bu ko waxee ñëpp a ngi ci biir. kon suñu Cheikh Fall jëmb lépp lu mu def ren bu déwénee mu def mu def lu ko ëpp waaw loolu nag moo dox ba tey ji agsi ñu am cin na beneen cin bu ñu dolli bu bu agsi fii kon xam nga ak yokk la waaw <laughs> ndax daaw ni mu demee la woon ñu toggee ci kër yi waaye lii cinu ko yokk la boo xamante ne nii sëriñ bi suñ Cheikh Fall jëm da koo sas rakkam wi mu koy taxaw saa su nekk ci këram gi di ko bu noppee jël ko yóbbul ko ko yóbbul ko ko fee mu nekk ca Mbàkke taxawaay bi lan la war a doon parce que jamono ji dafa soxla nga gis ndaw ñi ni ñu def jëmbale Baye Fall te yoonu murit eh, yenn loo xam ne luy luy luy nuru lu fi àddina lépp baatin la yan ñaax ngay ñaax ndaw ñi nga xam ne dañuy def la leen neex tey tooñ suñ kilifa yi xam nga yoon wi luñ ci yokk amu la fi daan jëriñe démb jamono suñ tubaa ba tey moo fiy jëriñe lépp lu àndul yar ak teggi suñu borom ko njëkk bëggul kon sëñ Modou Aminta nag dafa am bis ñu laaj ko ci Baye mu ne Baye Fall dafa am ak bàyyi sa bopp nit ki nag boo demee ba gis ko mu wuyoo Baye Fall nga xool ko mën a gis ci moom lenn loo koy xeebee kooku ku bàyyi boppam la waaye Baye Fall moom ku mu jaxasool ku mu jaxasool di nga xam ni jaxasoo nga ku jar a jaxasool Baye du manqué Baye Fall dafay civilisé hmm? Baye day bëgg lu baax xam ko te nekk ci loolu ndax bëri na ñoo xamante ne nii fu ne balaa ñu laa jàppee Baye Fall da ngaa am melo waaye na xam ne nag dëgg-dëggi Baye moom boo ko génnee ci murit rek kooku moom xool ber ko fee te xam ni bokkatul ci Baye Fall yi Baye bu buñ ko dee wax ab murit bu dëgga moo tax murit saadix moo tax ñu wax bu Baye Fall ndax ki bàyyi léppam jàpp suñu tubaa képp kooku bu ñu dee wax murid saadix kookoo tax ñuy wax murid saadix waaw kon Baye Fall moom loolu nag foo dem di nga ko fa fekk foo dem fu ne di nga fa fekk ñu mel nii ak ñu mel na leen waaye nag nit boo ñëwee mu ngi mel ni boo toogee ci ndax boo xool la nga ci soxla moom nga ciy jël moom nga ciy jël dem kon li nga xamante nii bokk ci muy ay ñàkki teggin ak i ñàkki yar gone ya koy def kenn digalu leen ko te it du benn kilifa goo xamante ne nii dina ko gis mu doon koo xamante ne ku leen ci jàppale wala lu ci mel la ñoom ñi saa su ne sëriñ bi bu weer wi bu ñu ko séenu bu njëkk lay dajale mbooleem mbokk yi ak ndongo yeeg taalibe yëpp ñu daje ci kër gi ñu fi newul sax dañ dees ne leen ko audio yónnee leen ko mu leen di ñaaxaat ci taalibe ak ni nga xamante ni noonu la bëggee noonu la bëggee kii donte yar na leen ci bañ xam ko ni xam ne nii la war a doxee waaye nag ak ak dolli la soññi moom saa bu ne saa bu jugee rek ak dolli lay doon ci ci ci nit ki kon daal ñu xam ni li ci nekk te bokk ci loolu moom foo dem di ko fa fekk waaye nag sëriñ bi moom li mu woote mooy ay yar ak i teggin ak tegu ci yoon ndax togg ba mu baax nga jëbbal sëb sëriñ bu ca tooñ amee luñ luñ lu ca am lu ne yow la yow